salaamaaleykum man Cheikh laa tudd Cheikh Cheikh Lo waaw man maa ngi dëkk Saalum waaw. Euh, lan moo la indi fii Tivaouane. man Tivaouane lu ma fi indi damaa feebaroon feebaru xel ba may ñëw Tivaouane man sama mbokk yëpp dana amoon jaaxle si man sama sama fam yëpp ay murid lañ man bañ ne ko man man Cheikh maam Cheikh Ibra Fall bañ ne man maam Cheikh Ibra Fall lañ ma tuddee waaye damaa demoon damaa doon feebaru feebaru xel tëdd naa fukki at di wax wala fañ mënumaa wax mënumaa dox bañ ma ñëw Tivaouane si sëñ Mantour dañ maa yeewu. léegi ba ma ñëw sëñ Mansour ba fekk ko xombal ba ma dóoree na ma jugal dox ci laa na ñokk daaj dox ba ma nee ba mën a wax mën a dox la ma sama waay ñëw may ma sëñ Mansour a ah, loolu nag moom ma andi Tiwaawan te sëñ Mansour nag dafa am lu def lu bari lu bari def si man moom ñu bari dañuy def man Tiwaawan man maa fa indi sama bopp ba ba ñàkk burd bi sax bi sëñ Abdou day wax sax dem naan yàlla na fi yàgg te wér su ma ko waxee ñaan goo ma ñaan sëñ Abdou ñëpp mbooloo mi naan amin ñëpp dañ ci kontaan ci wax jooju bu bari jox ma ko ma xam ne Tiwaawan loolu moom fi indi di ñaan yàlla kilifa diini gii sëñ Abdou Aziz Al Amin yal na ko yàlla may fan gudd ak wér man loolu moom indi Tiwaawan sama waa dëkk waaw maa ngi maa ngi jokkoo ak ñoom téléphone maa ngi fay dem kay ndax sëñ Mansour moo may soxna te may may soxna booba yëkkati na xaalis bu bari xaalis bu takku ñeent fukki junni jox ma mu ngi dëkk bi ngeen ngi neew mi naan dëkk bi naan àccu waaw fii dama fay dama ci ñëw te yéen ma dama ñëw ci garage bi di laaj te ba naa su may laaj dama naan leen lu leer laay wax dama naan laaju lu ma jàkk laaju lu ma juma gars yi taxaw xam nañ ko bu baax ndax la ëllëg loo wax ëllëg sa bàmmeel laaju lu ma jàkk laaju lu ma juma sama bopp laay laajal te lu ma yàlla jox ma yónnee ak sama soxna ak samay waajur ni ñaanal ma si barke Serigne Babacar Sy waaw jërëjëf wasalaam